lii combat bi. may nga koroboro wala may nga forof ci ay ñam. borose. borose kon waa ji. day wax lu ko neex rek. boo ko jàppee daa xam ne yàlla dina la santal. mais moom nee na combat bi du yàgg te yow say bopp xam nañ ne combat bi du yàgg. na taxaw bi nga ko xool su bëree ma saa ko. man lu fi waay di wax na leer de man pour na nga jëm rek na leer bés ba li ngeen di wax di ngeen ko jëf. même ko si ñaata ngeen ne ah dama ngeen dëggal boobu man daal di ngeen jóg parce que du ma ko du may ne yàq ngeen ci moom moom laa faral di dem waaye xam nga ma ne kii maa ko dàqal bëri maa ko dàqal bëri. da ngeen daal di te la si leen ni ñuy def ni ni ñuy def tournée yi ci bés bi yéen def la lay def le onze. loolu bëgg la loolu waaw dama la dama la surtout mu sama kaana sama bopp loolu jaaxal ko sa da nga la Thank you. di nuyu ñu ma fekk ci salle bi yëpp waaw di suñu la mën a ay sama la mu tax njaay booy bi nee na da la waaw abal na ko fan ci jiw ba la njaay ko kon da ngay naq saale noonu stratégie la non ba pare waaye maa ngi bëri ñu fa dama lay waral suñu commencé commencé maa ko maa ko soog a bëree te boo bëree lii laa war a ba taxaw ne sa bopp laa mën a am sama wax de. ñun Bawol ñu ñu maa ko bëree ñun Bawol ñu ñu bëree ñun. daal war a daal bëri. daal ñu ñu yaa ko ñu ñu yaa ko seen doom ma yaa ko bu ko yaa ko daal ñu ko ñu ko yaa ko loolu wax nga ko demee. da ngay gis laa bëri ñu xam ne ay waa. booy kan moom la booy amee lu. ngi sànq ba tey ñu la toogee waaye danga bi laa ko sant yow di di sant sama ñaari waajur di nuyu ñu fi taw bi saal ko ah, man def ko lu garaaw lu gaaw. lu garaaw mooy bu taxawee dëggal boppam bañ a yóbbu ñu xeer ma jàpp ma door. waaw kii mooy loolu waaye damaa yor am na en face xool ñu xool lii ko xool leen ci amee voilà nee na dafa nee na dafa yàkkamti waaye saa yi bu mu demee man ba ñu ñu wax lu mu wax lu mu war a def moom boo waxee ne yow ñëw lu mu war a def moom fekk moom incha allah loo ko bëgg a def ci ñëw waaw bu ñëwee ñëw naa ko def incha allah kii day kii day soob day neexal barke maam Sarafa barke suñu yow digal ba xam man damay neexal ne ko ñu kaamil ñu ba la wax di remercier sama kuréel lañu sant yow mooy juleen yoon di ko def maa ngi waaw sax su ma ñaawal di leen ñaanal sax c'est que ñun moom daanaka boo ko xamul moom daanaka boo ko def respect da ngaa jàpp da ngaa xamul parce que boo xamul dégg na nga xam ne dégg na lu la kon boo kii nag mais nag boo ko jox respect yow la rek suba liñ doon yow nee na wallaay respect la jox ma nangul sax xool dalaa rus waaw nee na laa rus dëgg dëgg ban bee dee na ah kon loolu la moom damaa rus ndax mais bis baa bi ak suuf suuf baa bi mën na daj man moom sama boobaa bi yàlla du du yomb du yomb sax sax sax lañu ko ak mu ne reporter traditionnel yi def yëpp xam nañ ne man sama boobaa donc buur buur lambam day metti de. lu leer laa lay wax. lambam moom mës ta day mit day dóor a ah, daal. yomb yomb day kii naa ko waaye. nee na waxal ma jox nee na dina la si maay. nee na garaawul tam el koyo sa baax bi la jox. waaw loolu si kër. da ngaa faral di sant démb. démb ñaata Iran nga leen trente poulet sa way mooy naturel est-ce que yàgg nga si daal est-ce que xam nga kon bu bis baa ko tàggal bu loolu yées waa gën a laaj loolu ñu koy wax ñu defar ko pour ñëw di woo waa Mbour waa Kare Thiaw waa Malika mais Mate yëpp lañ ñëw ma jàpp ñu defar ko gaaw. naturel kii jaago la njaago yi daal di leen daal identité ak humanité kenn ku daa ko jeex si balanta laa la ko. jeex na si balanta la ñu leen jàpp. maanaam ku jot jàmm jaar ci barab bi nga wax dama bàyyi. ndaw ma ñëw leen di waaw waaw waaw. alhamdulilah alhamdulilah inna walilah. maa ngi nuyu fi teew ñëpp. dama koy sant di ko gërëm. yéen seen ñëw. dama koy sant di ko gërëm ndax avance bi ñu koy mooy bëri na moom mu jël ko. te yaa ngi jël man xaw ma lenn lu may wax moom maa ngi sant sama yaay bu baax a baax yàlla moo ko maa ngi ñaan yàlla si kàttanu yàlla boobaa aussi. suba ba ma daal yàlla may ma dam mooy li am loolu yaa ngi ñaan ci daraja yi Yuusu Kristaan. incha allah ñun bu rëy ci moom la ñu am mooy cosaanu réew mi. théâtre bi ñu def sax quatrième art Grèce ñoo ko créé suñu cosaan. kon làmb moo doon loo xam réew mi ko réew mi mu doon loo xamante ni suñu yëf la. di nuyu bu baax promoteur bi nga xamante ni moo waral ñu teew Serigne Fallou Ndiaye di nuyu ñi nga xamante ni ñoom lañ fekk. yëpp ah ñoom Nabou Yada nga xam ne yàgg na noo daaneel ci wayu lamb waaw sama xarit bi nga xamante ni moom la ni Babacar ñoom laay si ci YouTube bi xam ci lamb mm. di mm. bu baax waaye sànq loolu laa ñu que tey boo xoolee ci gàttal restaurant yu bari da nga daan dugg da ngay gis bi vente loolu la ñuy ventilo bu yàggee daw saleté bu nekk daf koy jël bu fekkente ne ngaa dugg ci restaurant bu fekkee ni ventilo bi dafa daw microbe bi dafay dem ba ci li nga xamante ni ci ngay xew mm. ni muy nga xam ne restaurant bi amul amul ventilo si doon waaw maa ngi leen di naan sa jàmm jàmm kay maa ngi sa waay sama moom sa booy sama poulain la waaw ci nan li bëri sa sama poulain la ah. di sant ak poulain da koy bëri moom war naa yomb. day yomb kay. waaw est-ce que dina yomb. léegi bis ngay waxal la léegi bis ngay waxal. xam nga booy bi Ada Fass. soxla ma xam si moom dara. dégg naa booy bu mën a bëri. soxla ma si moom xam dara lépp maa koy def. maa koy def lépp maa koy def. waaye du ma bàyyi daal. Seydi Boubacar Sy gaynde gu gaañu la de ah di wàcc ma Cap-Vert gaynde gu gaañu di ziar soxna tegewul gaynde tegewul lu mu doon di Seydi Abdoulaye Thiaw la rek bëy bëy lay dugg bu xiifee waaw waaw xam naa bëy sa àll la rek bu baaxul jigéen gën ji gën ji nag rek affaire yi la wax def na fukki fan ak benn gën ji yow ay fàcc li may laaj sax fàcc lan moo ci xew. salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp nekk ñëpp di jóge ñëpp di ñëpp ñëpp bàyyi ma kenn ñu pala jaar ñëpp ñoo taxawal bis yi xam ñu ko ñu ko ziar ci saafam yëpp léegi bu ñu grand moom xarom nekk naa bu baax am na Moustapha xam nga ñaar joo Modou Faye Gose Baye Faye xam nga di gërëm suñu papa ñuy toog xam nga xam nga suñu papa suñu kilifa la suñu lépp la di gërëm ñëpp bàyyi ko kenn di gërëm waa Kàmb di gërëm benn ziar ñi di nuyu à la face mais lu seen sa à la base problème boobu suñu diggante moom mu ngi xool di màgg sax ba tey problème amul seen diggante matu tàppel la ah matu tàppel la kuy tàppel matu tàppel la ya maa ngi jaale sama doom lay sama lépp sama copain àll yàlla na suuf si kawam sama mère mère Ndiaye kii amul mu waaw Fass Mbaye. nee na màttul tàmpat lay màtt. maam góor gi jaay sama maam maam góor gi jaay. sama maam Fala. dama yegg maam Fass Mbaye am lu ma jox incha allah bi non c' est moom mu ngi téye incha allah dinaa ko toogal si saa dinaa ko toogal. toogal kii dinaa ko toogal suuf maa ko wax. ah li nga wax ne man li nga wax man genre suñu séeréer la man damay toog ak خلال عشان كان هو يبان مش ده الباقي 4000 هو يبان من الجمال هو بارك سيدنا وبارك بسم الله والله تعالى سيدنا وبارك بارك يلا بارك maa ngi daa ko bëri amul façon bëri bu ma jàpp laa ma dem ma fenn si bëri laa koy am doole maa ngi ko bëri maa ngi daa bëri bu àgg si ne moom ne ko kii amul lenn mooy rëy na si moom loolu mooy xaar si moom laa bi mu dee mooy tëdd ba nelaw yaa ngi yaram bu am gëlëm si yaram bu am doom jàkkaaram la caméra bi Ablaye Ndiaye mu Arafat looy mujjee wax. boobu baax na passé. gars yi gis nañu ma jël solo bu bëri waaw waaye moom man loolu liggéey nekk xale bu ndaw xaw ma dara man ma lekk yàpp ma lekk ginnaaw tere rek te doon te wax naa tere rek ma lekk laa ko baax te bu subaa na xam ne waa ji tere lay lekk ma jàppee ma way fekk si rek ginnaaw sama koy di woo ñëpp nag paas normal maintenant dana Dakar waaw man moom bi di ma bàyyi waaw waaw. kay na ñëpp ñëw waaw waaw. laa ma doon seen biir léegi damay yóbbu ne sax dugub faas daal nga di fa tax ngemb si dugub faas ba pare. lépp si xel lu sell rek garaaw. dugub faas daal nga di fa tax ngemb. ma jàpp la daal di dugub faas. comme que xamu leen muy xalaat. ba pat géew lu géew dina di bëri naa. mais booy bi dalaa ne ñu toog li nga gis sax mel dalaa ñu mel quoi. mais kon wax benn ñëpp lu mu jot a ko siy fekk si. yéen ñoo xale bi bu sa bay xale bi rek sa bay fekk si buur ku yëpp mbooloo ñoom ñaar di woo waa kër Moussa kër Sène kër Mané kër Mbenda xam nga di woo ñëpp bàyyiwuma kenn di woo sama kilifa bu mag yi naan waaw borom am-am xam nga di nga woo borom ñaanu xaas yi xam naa fi ma xaw a fi ma toll lépp doomu Moussa wax dëgg naa ko man xam nga chaque jour maa ngi koy si kaw xam nga jëf lu baax la dama xamal jëf lu baax la may digal saa su ne te lu baax loolu la may digal si laay sax waxtu yu juróom moo tax loolu la may digal saa su ne dama des des garaaw di foog di ñaan di ñaan sama yaay di ñaan bu baax di ko ñaan sama baax mu defal li mu bëgg si man incha allah rabbi dina ko am. di nuyu sama sëriñ bu baax nag. waaw Cheikh Mouma Fall. Baye Thiam Fall. maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax. di nuyu sama wasi la sama lépp. di Cheikh Modou Kara Mbacke doole yi. di ko tàll sama Arafaas man Arafaas maa ngi lay tàll sama loxo. ñaanal ma. waaw man doon lu bëgg a. jërëjëf Arafaas xamal ni analyse bi ñu tàllal moment bi ku ne xam ne sànq tey ñoo ngi àndoon ak yéen sur la. di la télévision des grands événements àndoon ci ay correction bi jëm réseau yi ñaar yoo xam ne restaurant bi comme ni ko waxee rek dafa am vraiment ay loo xam ne lu am solo la ndax bari mu ne ci restaurant bi fekk liggéey am na solo ñu ko ñaanal daal vraiment yàlla yokk yokk si yëpp bu ñu jógee foofu nag ñu ngi lay nuyu nuyu ñi nga xam ne mooy Babacar ñu ngi laaj ñaari deux di nuyu yëpp di nuyu ci yàlla ak famille yi yëpp ñu ngi leen di seen seen taxawaay rafet ak seen cameraman ñu ngi ñëpp di nuyu wax ne daal vraiment ñu ngi bu baax a baax di nga xam ne moom la organisé incha allah mu le 11 janvier ci seen gouvernement boobu loolu diggante Ada Fass ak boobu ci waa Maata yëpp ci waxu làmb di leen wax ne ñu ngi yëm demande bi incha allah le 11 janvier jógee foofu nag ñu ngi am benn tournée boo mu war a ñàmm koy ci diggante bi nga xamante ne nii mooy. caatu ngéwél muy bis am solo ci ñun ndax bis bi dañ koo ko su ma nee mooy bu bu jëlee bis naa ne dama bu Fall suñu président bu tëggee bu toll Boubacar Niang jël drapeau boobu jébbalaat ko Papa Sow Siteu ak ñi nga xam ne mooy président Papa Fall kon yaakaar naa képp kuy na drapeau bi boobu ñu jox ñu ko bu ngeen rendez-vous bu am solo la incha allah bu bientôt nañ commencé di promotion boobu tamit xam ne loolu suñu journée la ñu promoteur yëpp di wax ne tamit dañu changé bu nga xam ne ñu ngi dem si ñoom Ousmane Diop ci bi nga xam ne mu ngi jëm daal ba muy 5 millions di vraiment mise bu am solo di simple boobu yaakaar naa lamb bu rëy lay nekk lamb kon ñu ngi yi ñaata la prix bi yëpp toujours noonu lay mel yaakaar naa bi ñëw bi yoon lu muy sol parce que bii passe jàllaa laa gisoon mu sol quoi dem toog ci kaw toog kilote lay def wala lan ah. jaajëf Fatou